sant yàlla bu baax a baax tey mu may ñu ñu fekkee tey bés bi ma ne tey nag di le 8 mars 2022 di euh, bés bu ñu jagleel jigéen ñi ci àdduna bi muy bés bu mairie de Dakar jël tey pour sargal jigéenu Ndakaaru yi pour jaajëfee jigéenu Ndakaaru yi pour teral jigéenu Ndakaaru yi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant ci seen taxawaay ci lii di la société sénégalaise yàlla moo dogal ngeen doon suñuy yaay yaay yoo dogal yàlla dogal ngeen doon suñu jabar yàlla dogal ngeen doon suñu doom yi yàlla dogal tey lii di société bi yéen ñaa leen ko yor parce que yéen ñaa leen te ginnaaw yàlla tey fii ndakaaru daanaka sutura su bëree ci kër dinaaw ginnaaw yàlla jigéen ñi ñoo tax kon nag yàlla bu am fay na leen yàlla fay seen xol seen taxawaay seen diine seen yéene ak seen cofeel ci seen njaboot ak ci seen gox maa ngi nuyu jigéenu ndakaaru yi ne tey nag ñun nii lañ ko bëggee woon mooy dañu ne fu dëkk bi toll wootewuñu puukare parce que puukare moom nu ko waxee xale yi mooy daanaka dañuy fooye suñu xel yi rek dëkk bi jafe-jafe yu fi jigéen ñi di dund jafe-jafe yi fi jigéen ñi di jànkanteel xam nañ ko moo tax ñu ne tey dañ def suñu kéem kàttan ba woote tey mairie de Dakar jéem a xool naka la man mii di maire de Dakar ànd ak le conseil municipal de la ville de Dakar lan la ñu mën a def tey ba mën a fital jigéen ñi mën a dooleel jigéen ñi mën a kàttanal jigéen ñi mën a jàppale jigéen ñi mën a gunge jigéen ñi ci la journée internationale de la femme bu ñuy célébrer à travers le monde ñu ne. am na ay jigéen ñu bëgg a liggéey te dëkk bi dafa xat ñu ne suñu xalaat bu gàtt nañu góorgóorlu ba yenn jigéen ñi ñu mën a am lu ñuy woye ay permis de conduire parce que tey am na ay jigéen yu bëri ñu ngi liggéey en tant que commercial ci ay société wante balaa ñu lay recruter dañ lay laaj nga am permis de conduire dans la même ñu ne am na ay jigéen yu bëgg a jàng en l'occurrence des jeunes filles ñu ne nag dëkk bi nu mu xatee ñun ñëpp xam nañ ko ñooñu dañ leen di jàppale parce que peut-être ñoom seen loxo wala seen ay loxo woojul jotul seen ginnaaw kon dinañ leen jox ay bourses d'études ak de formation ñu ne tamit loolu dañ ko fas yéene def avec la direction de l'éducation et de l'insertion moo xam bourse yi moo xam permis de conduire yi bu ci des ñu ne am na ay jigéen ñuy daan seen doole wante moom dëkk bi ni mu tëddee ñëpp xam nañ ko ñu ne mairie de Dakar am na ay programme de financement ñu am ci benn programme bu ñuy woowee le FODEM may jaajëfee madame Samb di jigéen bu mën góor di euh, jigéen buy diriger le FODEM ñu ne dañuy jàppale ay jigéen gunge leen jox leen ay financement wante financement yooyu nag ma bëgg a wax jooju leer su ñu waxee financement rek daanaka dañuy wax remboursement wante remboursement yooyu daanaka taux yooyu mën nañ jàpp ne sax que du taux daanaka ku ñu lebal cent mille francs wala ñu lebal la deux cent mille francs lu ngay rembourser mairie de Dakar daanaka doo ci sax teg lu ëpp cinq mille francs wala dix mille francs kooku mooy pour permettre ak yeneen jigéen ñu mën a ñoom tamit am seen tour am seen chance moo tax ñu ngi ñaax suñu jigéen yi képp ku fi jot am financement Fodem na góor góorgóorlu ba remboursé soo mënulee remboursé tamit ñu ko waxee tubaab yi à l'impossible nul n'est tenu wante da ngeen ko déggee noonu su ngeen góorgóorluwul ba programme bi mën a tourné yeneen jigéen yi lu ci bëgg bénéficier wu dina jafe lool ci ñoom pour ñu mën a tamit bénéficier ci programme boobu moo tax ñuy sàkku ci yéen ngeen def seen kéem kàttan ba képp ku fi am financement nga mën a góorgóorlu mën ko rembourser pour ko d'autres femmes ñu mën a am la chance mën a bénéficier ci programme yooyu ñu ne dëkk bi am na fi ay jigéen te je pense que loolu mooy la majorité ñu yor seen kër yor seen njaboot yi dëkk bi xat lool ci ñoom ñu ne ci journée internationale de la femme tal na ay jigéen jox leen ay bon Auchan bon Auchan yi nag euh, dama proposé woon mu nekkoon ay bon cent mille francs ñu ne monsieur le maire loolu suñ ko defee duñ ci génn nañ ko def ay bon cinquante mille francs donc bon yi ñuy joxe tey mooy nekk de bon de cinquante mille francs wax nañ ma cent tamit que am na ay bon de vingt cinq mille francs wante comme commission moo ko moo ko acté moo ko décidé man malheureusement du ma ci mën a teg baat bu ci des mooy dañu ne dafa am ay jigéen moo xam ñoom dañu am ay soxla te seen loxo dootul seen ginnaaw mënuñu dem ci ay pharmacie ñooñu dañ leen di jox ay bon de pharmacie te bon yooyu moo xam dañu bëgg a jëndal seen doom yi ay couche moo xam dañu bëgg a jëndal seen doom yi ay meew moo xam dañu am ay soxla mais au moins ñu mën a fréquenter benn pharmacie partenaire avec la ville de Dakar entre autres ñun taxawaay boobu la man monsieur le maire ak le bureau municipal moom la ñu jàpp ni que loolu suñ ko defee mairie de Dakar mën na indi contribution ci dans le cadre de la journée internationale de la femme pour mën a fital une fois de plus jigéen ñi mën leen dooleel mën leen gunge mën leen jàppale bu ci des nag dama sàkku ci administration bi ñu teg ay guichet parce que lépp lu wax nii moo xam financement yi moo xam bourse yi moo xam permis de conduire moo xam bon Auchan yi moo xam bon de pharmacie yi suñu tënkee lépp mille cent femmes ñooy ci gis seen bopp tey te comme ni ko xamee ba ma egsee ci mairie bi ba tey matagul weer donc les débuts sont difficiles moo tax ma sàkku ci administration bi ñu mën a installer des guichets d'inscription et je vous promets que d'ici quelques semaines dinañ gisante dinañ dëggante te dinañ tegante loxo incha allah wax naa ko ci campagne bi ma koy biralaat fii mane ci campagne bi wax ci bari lool ma ne leen jigéen a ma jur jigéen a jur sumaay doom te loolu la yàlla dogal man maa bëgg jigéen suma biir xol man maa bëgg waaw moo tax moo tax ma ne suma mbokk maire ci campagne bi man leen na ngeen ma waxal jigéenu Ndakaar yi na ngeen ma waxal suñu yaay suñu jabar suñu dëkkandoo ngeen ne leen am na benn loi loi bi ñu ngi koy wooyee la loi 2008 tiré 29 du 28 juillet 2008 loi boobu lu mu wax nee na lépp luy commande publique moo xam présidence de la république moo xam assemblée nationale moo xam ci bépp institution moo xam ci bépp agence moo xam ci bépp mairie fépp fu état nekk muy lancer ay marché quinze pour cent de la commande publique dañ ko nar jox ay société yu jigéen créé wala jigéen publique moo tax may sàkku ci association yi xeex pour la parité je leur demande et je les invite à aller au-delà de certaines considérations et de marcher vers l'essentiel parce que wax parité loolu daanaka mooy lu tubaab di wooye slogan mais comme ñoom yàlla may na leen ñu am xam-xam ba di jóg ba di wax ci turu jigéen di xeexal jigéen ñi di taxawal jigéen ñi ma wax leen man nekkoon naa député ci assemblée nationale voté naa benn loi bu wax saay bu mairie de Dakar di joxe lu toll ci un milliard ci ay marché cent cinquante millions yi loi moo ko wax du maire ci mbaaxaayam loi moo ko wax loi nee na cent cinquante millions boobu dañ ko nar a jagleel jigéen ñi kon nag foofu laay daanalee dañu am yéene samp fii biir mairie de Dakar lu ñuy wooyee observatoire citoyen ci observatoire citoyen boobu dama fas invité jigéen ak association jigéen yi ngeen xam ne ni ñoom ñooy xeex ak ak yelleefu jigéen yi pour ñoom ñu ñëw dugal ci seen loxo pour être sûr que la commande publique de la mairie de Dakar respectera la loi et l'esprit de la loi 2008-29 du 28 juillet 2008 conférant 15% de la commande publique à des structures dirigées et créées par des femmes kon nag moom laa mu wax di leen di ñaanal di leen di sant di leen di gërëm ah, yàlla na leen yàlla aar yàlla na leen yàlla sargal na leen yàlla teral maa ngi leen di gërëm di leen di sant jërë ngeen jëf mbokk